asalaamaaleykum mbokk yi asalaamaaleykum askan bi asalaamaaleykum yéen internetu dag Médina maa ngi fii ci pencu Jekko euh, ñu nekk ci jàkk bi nga xam ne jàkk cosaan la ñu ñëw tey dañ ko doon euh, euh, dañ ko doon démolir pour mën ko yeesalaat ma taxawa koo xam ne kenn du ko présenté Sénégal kenn du ko présenté biir Médina kenn du ko présenté biir Jekko parce que moom fierte la muy Alaaji Ngagne Diagne Alaaji Ngagne Diagne Dak Médina dañ leen seet woon yow déjà ñu ngi lay sargal di la remercier ci taxawaay bi nga xam ne da nga ko am biir Sénégal taxawaay bi nga xam ne da nga ko am biir Dakar taxawaay bi nga xam ne ko am ci lébu gi ñu ñëwoon seet si la ñu waxtaanee un peu nga wax ñi nga xam ne dañuy seetaan li un peu cosaanu Jekko. Euh, jërëjëf waa Dak Médina maa ngi leen di nuyu euh, di leen siyaar di leen suivre nag aussi ndax entretien yu bari dinaa ko suivre ci yéen ngeen koy defal doomi Médina te loolu aussi dafa am solo parce que communication léegi ci euh, la ñuy identifié woo lu bari. te bon yomb na yombul jafe na jafewul waaye yéen yéen a ngi koy lombal sunu doom yi bon rawatina ñi nga xam ñu ngi yëngu ci lu bari ci culture bi ci politique bi ci diine ji surtout moo indi lii. waaw ma nekk fii nag fi nga ko waxee mooy pencum jekko pencum jekko dama lay délimiter d'abord pencum jekko su ma la ko délimiter nga xam jekkoo mi ngi commencé rue 22 ba rue 6 canal bi ba. rue 25 loolooy périmètre Jekko périmètre boobu nag moom la ñuy woowee Jekko waaye yàlla dafa dogal penc mi nekk ci rue bi ñuy wax rue 29 waaye périmètre Jekko mooy loolu euh, jàkk jii nag jawier bii ngeen xam ne moom ngeen yow tey te di leen ci remercier d'avance te it ñu ne ko yéen a ko bokk ndax fii mooy seen penc te nit dëgg yàlla euh, balaa ngay laax euh, jaay Euh, euh, euh, laax lekk d'abord waaw li ngeen def dafa am solo ñëw fii ci pénc mi ànd ak ñun ci liggéey bi nga xam ne moom lañu ñu door Jekko li nga wax day péncum cosaan ku ne xam na ne 1914 la ñu sos Médina bi ñu sosee Médina ci la pénc yi judd ci biir loolu Jekko bokk ci zawiya bi dafa yàgg dafa cosaane ko sa ko xam ne ne Médina dafa am solo ci ndakaaru mooy capitalu Dakar Médina mooy capitalu ndakaaru parce que fii la président conseil dëkkoon Mamadou Dia këram nekk nii à cinq mètres wax nañu ne jàkk ji bokkoon na ci ñi fi njëkk a indi rajo Lantinoor pour bu ñu noddee mu dégg ko bu fajaree mu jóge këram ñëw di julli ci jàkk ji ku ne xam na ne jàkk ji El Abdou Aziz Sy Dabakh da daan jóge fii ci këram fajar ànd ak euh, euh, euh, njabootam ñëw jaar fii sunu biir kër ndax man sunu kër ngi moo boot jàkk ji fa la daan jaar fajar ñëw jullee si fii ku ne xam na loolu ku ne xam na ne sëñ Babacar Sy moo tracé fii moo ko orienté penku moo jox mag ñi orientation penku bi fii kon xam nga kii fu fu cosaane la waaye bes-bes bi mag ñaa ngi ko yeesal décembre 69 la ko mag yi yeesaloon biñ ko yeesalee en décembre 69 ñun boobu tout tànk la lañ ci ndaw yi for xeer yi loolu ñun duñ ko sunu sunu mami, yi nga jur sunu bayi, sunu mami yi nga jur sunu yaay yi fii lañ daan daje comme bésu ngeen dimanche Euh, takk takk takk rajo yi euh, li ñu gënoon jàpp ci ci ci ci baat mooy luwaay am luwaay man la ñu daan wax mooy ñi naayam yi ne euh, bilaal yi nekkoon fii ñoom góor gi Moustapha Ndiaye ndeysaan noddkat yooyu ñoom góor gi Silla noddkat yooyu amoon na benn góor gu dëkkoon 39 pour wan na ne la 39 angle angle angle 18 digganteem ak 20. am na góor gu daan nodd foofu góor ga dama fàtte turam nga xam ne périmètre bi laa lay wax rue 37 angle 18 góor gi Moustapha Ndiaye fa laa daan jóge di nodd si Paco Jackson caam waajuram bi ñuy njëkk bi ñu tabaxee jàkk ji moom la mag ñi joxoon caabi ji mu di ko tijji baayam bi mu génnee àdduna fii lañ ko jullee ci pénc mi parce que penc mi moo englobé loolu yëpp ma la wax booba jàkk jàkk bariwul fii yi jekko ku ne xam ne ne jàkk cosaan la jàkki penc la ba pare périmètre boobu ma la wax loolu yëpp mooy jekko moo tax léeg-léeg nga dégg jekkoo noor ak jekkoo sud fii nag mooy jekkoo sud moo ambaloge jekkoo noor loolu mooy indi loolu nga xam ne mooy mag ñi dugalante bi ñu daan dugalante lii nag bi ñu demee ba jëmmi jamono ak jamono di dox xam nga 69 ak léegi ay at la ñu gis ne ci diggante bi nag duñ ci ñàkk gërëm benn Bass Diagne mi nga xam ne gis nga lii ngay gis nii yu bees yi ngay gis nii nga xam ne moo ko beesaloon ba mën ko tenir ba fii moom la ngir yàlla ak moom waaye deful def boppam la ko defal ndax fii la yaroo Kër Pa Doro Diagne fa la yaroo daan jàngi fii sunu kër papa Maodo Kane ci Ali momben bas baas bi ma recevoir ñuy wax waxi xam nga rek waxi làmb ci ba mu ci duggee noonu ma ne ko daal li ma ñor du làmb li ñor daal mooy pénc ma mu ne ma lu xew ma ko jàkk ja ni mu mel mi ngi mi ngi commencé màgget mu ne ma léegi lu ñu def lu leen di jox ma ko bul jox dara yàgg nga tabax jàkk yàgg nga defar entrepreneur bi liggéeyal ko ci ñun mu bi mu mi ak euh, laa ne nañ ko teg ci loxoom ma dem tàggu imaam Sadikh Ndoye di ko ñaanal yàlla yokk leeram mag mu baax limaan ju baax ñun moom la ñu gën a miin ci imaam yi à part sunu maam Omar kan moom it yàlla yàlla yokk leeram euh, sunu baay Maodo Kane yàlla yokk leeram di ñaanal imaam Ousmane mii nga xam ne moo leen wutu ñoom ñëpp nag yàlla yàlla guddal fanam moom laa ñëw dem mu jox ma ndigal ne ma euh, ne ma loolu day lu baax la ci la ñu daam ñëw nag ak entrepreneur bi yii nga gis nii yu xaw a bees yi ak yii yëpp ak mbaar mi ne woon fii benn bâche moo ko fi def changé colistra yi yëpp moo ko changé moo tax mu mën a tenir ba léegi nag ñun bi ñu xoolee na nag mi ngi dégradé wu nag la ñu jël nag woo penc mi yëpp bàyyiwuñu kenn ñi ngi def appel à tout le monde fu jullit nekk rek woo nañ la rawatina nag nga nekk ci périmètre Jekko ñu ngi lay woo nga ñëw jàpp ci liggéey bi li gën a jafe ñi ngi ci waaye li gën a ci jafe ma nga sunu kanam mooy yëkkiwaat ko defar ko euh, xam naa ci dinañ ñëwaat ci beneen kii ngeen gën ñu dimbali ci design bi ñu wan leen ko ngeen gën ko wan nit ñi ndax lii ngeen def yéen vraiment euh, ñun lii lañ soxla ndax xam ngeen ne fii ngeen dëkk xam ngeen ne fii ngeen bokk xam ngeen ne lii seen seen yëfa moo tax ngeen ñëw sonjuñu ñu ñu sonj sax ñun ñoo waroon ñëw vers vous mais yéen ñu sonj ci loolu mooy li ngeen di liggéey xam ngeen ko communication te actuellement ci communication bi boo gisee ñu dénkuma ko pour que mu dugg ci nopp yëpp la mu dugg ci kër yëpp mu dugg ci njaboot yëpp bu leen fàtte am na ñoo xam ne seen cosaan fii la mais yeewootuñ fi ku ne xam na ne kër yu bari gars yi ñi ngi ci banlieue bi ñi ñi ngi Europe ñi ñi ngi partout te lii daf ñi ci dimbali yéen kay da ngeen ñu tukkiloo yéen da ngeen ñu dugaloo ci kër yi parce que lii lañ doon cherché yàlla na yàlla gën leen kàttanal ñun dinañ ànd ak yéen ci lu bari loo leen bëgg a xam parce que fii mooy sunu waxukaay. waaw xam nga imaamu ratib ci njëkkoo loolu mënut a ñàkk euh, ndax euh, euh, amul bul amul benn imaamu ratib boo xam ne amoo deret jekkoo ci imaam Ahmad Lamine Diène ci imaam Maodo Sylla ba ci imaam Papa Samba. suma papa alaaji Malick Diagne nga xam ne moo topp ci suma baay imam Malick nga xam ne tey jii euh, ma nga grande mosquée euh, sunu baay Maodo Kane ku ne xam ne moo daan jiite famille prestation familiale sunu maam euh, Omar Kane moom la fa wuutu woon maam Omar Kane moo daan moo daan imaamu fii imaam moom am na fi ndax dëkku daara la ku ne xam na ne fii daara gi gën a mag ci Médina fii la nekkoon sunu maam aadi mu bàyyi bàyyi Maodo yoroon ko nga xam ne Euh, euh, euh, sunu sunu bàyyi fii la ñu jàngee man suma bàpp fii la jàngee papa keneen fii la jàngee kër gi bootu bootu jàkk ji fa la ñu jàngee alxuraan parce que li indi woon loolu mooy li ñu manqué tey xam nga lu ñu manqué mooy def penc yi daara def penc yi yarukaay def penc yi kiiwukaay parce que léegi dañu bàyyi njaboot gi mu tasaaroo fii xoolal kan moo fi jàngale alxuraan léegi ñun dañu sàggan ñun lu ñu rëcc ci njaboot gi dafa bari te ñun ñu woon noonu ñun kenn ñemewu foon yeewu euh, dimanche te demoo alxuraan kenn ñemewu woon jóge école di h euh, te demoo jàngi alxuraan balaa ngay dem jàngi sa leçon dimanche fu la 19h jotee fatu nga dem jàngi sa leçon li may wax xam ngeen ko li may wax xam ngeen ko parce que booba dañ doon kar kar kar xam nga ki lay ki la bëgg ki ki lay dafa bëgg nga jàpp xam nga lu luy loolu lu muy signifier mën nga juddoo ci kër gi. waaye ñi lay yara ngi ci mbedd mi soo defee ba ñu jiital la duma la ba jiital la sa pap mu dolli la kooku def nga ne boo génnaatee doo bàyyi xel góor googu looloo manqué te loolu la ñu war a indiwaat moo tax ci projet jàkk ji euh, ñu ngi ci prévoir foo xam ne fii au moins dinañ fi mën a éduquer sunu njaboot yi dinañ fi mën a dugalaat sunu njaboot yi parce que ñun ñëpp ngay gis nii avantage bi ñun fii la ñu yore ñun ci penc mii la ñu yore da nga daan génn fekk paay yi amoon na ay banc yu nekk fii ñu toog nga ñëw nuyoo joxe ñaari loxo éducation foofu la commencé xale yi ku lay nuyu léegi day yëngal sa loxo dalay lay peese sax boo xoolee mu bës la ñun dañ daan ñëw ñaari loxo lañ ñu daan wax boo daan toog ci ndab dangay ngay sa benn loxo li may wax xam ngeen ko sëgg sëgg lekk ba cuur loo yo loo jot dañ la ko yóttali yooyu yëpp ci éducation la lekk. ci la ñuy yar nit bool dañ ciy yar nit léegi lan la tasaaroo nañu loolu nag loolu lañu bëgg indiwaat ci bu ñu yeesalaatee fii ñi ngi woo ñëpp ci liggéey bi xeebuñu kenn euh, jàkki jekko bi euh, ku ko jàpp sa bopp nga jàppale ñi ngi woo ñëpp doomu Médina yep ñi ngi woo doomu Ndakaaru yep ñi ngi woo doomu Sénégal yep ñi ngi woo jullitu àdduna bi yep ci lii nga xam ne moom la ñu sumb te mag ñi bàyyil ñu fi diine bàyyil ñu fi l'islam bàyyil ñu ko fi te euh, li gën a li gën li gën li gën a li tax ñun ñëpp ñu war a sumeeku fii xoolal ci bi lañ lay lañ lay ñi la ñaanal pour tinul ci sunu borom fi nga xam ne nag fa la ñu wala ñaanee yàlla war naa taaru war naa set war naa xeeñ lu neex war naa gën sunu kër yi fi nga xam ne fi la ñuy tinoo pour nga dem àjjana foofu dafa war a rafet moo gën a rafet woo rafet sax pale bi gis nga boo demee màkk bilaay da ngay xam ne da ngay xam li ñu gaa yi rawee nit ko da ngay dugg Medina euh, euh, euh, kii yonent yàq yonent bi wallaahi da ngay defe ne man dama ne sax peex moom ma fay xeeñcu est-ce que du peexu àjjana parce que mosuma koo xencu ci kaw suuf peex ma fa am man dama defe ne peexu àjjana la parce que peex moomu ni muy duggee sa yaram man mënu ma ko am feneen ma ne nag ndeke yëf yi fii la parce que li dañ ko jox dañ ko jox luñ ko jox def ko luñ ko def ñun jàkk yi moo war a sunu ay palais jàkk yi moo war a fi nga xam ne bu gan ci penc mi lañ ko recevoir bala muy dugg fen, bala muy dem fen. ndax mooy kër yàlla mooy néegu yàlla te yàlla moonu moom estimation bi nag xam nga lawtan neexu la waaw lawtan neexu la ndax euh, lu lu ñu rek doyul waaw fu ñu milliard def ko ci wallahi bu amon miliar milliard def ko fii ñun ñëpp muy yow muy man muy kenen. amuñu lu gën lii amuñu gën lii te nag ñun ñooy mag ñi leen ci xel ñooy mag ñi te yemul ci jàkk ji ba ci ba ci logis logistique jël ambulance indi jël euh, corbillard indi di fi def sax ay district kii de santé yoo xam ne parfois da ngay ay médecin ñu ñu ñu def consultation jàkk yi mooy sunu rawukaay yàlla dim yàlla mais fii assemblée la te yàllaa ko wax dee leen dajaloo ma nekk yërmande seen biir social lii la boo xam ne bunyi daf ñu bëgg dimbali yàlla bu ñuy photo bu ñu bëggee photo ci jàkk yi photo pour am suñu identification parce que xam nga amul xeet amul waso, amul couleur amul dara am na ñoo xam leen bëggoon dajale ci kër gi du ñu dugg sa kër ñëw sama kër du ñëw waaye fii ñëpp fi dugu, amul amul sens interdit kon ku bëgg yàlla gis la del bari looy ñëw ci jàkk ku bëgg yàlla foto la del bari luy ñëw ci jàkk kon ñun lii rek la am muy ñun ñëpp nga xam ne fii la ñuy yeewoo amuñu lu gën lii moo tax alhamdulilahi rabil alamin xale yi koy liggéey ay setu setu setu setu setu euh, penc mi lañu ñii ñëpp setu penc mi lañu ñoom ñëpp ñu ci ëpp fii la fase Euh, ñun ñëpp fii la ñu fasee sunu sunu waajur yi ak sunu waajur fii ñun fii wallahi ñun ñëpp fii la ñu fii la ñu defee sunu sunu sunu sunu sunu sunu euh, liaison entre waajur yi loolu rek teraanga la loolu rek ñun buñ ci buñ ci juddoo euh, nga xam ne boobu juddoo gunu ñu màgg ci ñun lan moo ñu war lu ñu am def ko fii lu ñu am def ko fii ndax fii moo ñu barkeel ñaan yooyu ñu doon ñaan fii pour union yi doom yooyu yàlla na ma yàlla jéggal ci wax ji bu fekkee safaan la parce que xam nga léegi nit ñi <laughs> dañu mën a safaanal waaw waaw lu ñaan yooyu moo barkeel ndax li tax mu barkeel euh, doom yooyu ñu ci doon ñaan ñoo màgg tey set yooyu ñu ci doon ñaan ñoo màgg tey ba tey jii taxaw ne penc mi dañuy defaraat li gën ci penc mi muy jàkk ci waaw bu doon sunu sogo wallaahi lisi du mat weer dañ koy liggéey guddi ak bëccëg waye xam nga comme am-am bi dañ koy wuti comme am pam bi dañ koy négocier ji comme am-am bi dañ koy yaakaar ci jullit ni wallahi bu doon sunu sago balaay weer wi dee ñu dugg fi julli wér ra wax ré man waxuma ay at mais il faut calculer que dinañ ko jox temps bi mu lacc xam nga lutax raison de sécurité mi ngi ci té nit ñi aussi dañu am yenen engagement yo xam ne parfois da leen di teunk jot bi dafa xaw a senegal Sénégal euh, dafa xaw a ci dundin tey nit dëgg la bëgg nañu jàkk ci benn paraal waaye bëgg nañ nit ñi wér waaye bëgg nañ nit ñi am lu ñu lekk bëgg nañ nit ñi du ñu jaaxle ko loo tax nag temps bi nga ma laaj mooy bi bu doon sama sago wallahi balaay weer wi dee ñu jot caabi yi dinañ ko jox temps bi mu laaj temps bi mu kii ndax sécurité ndax ay kër a ko wër te xam nga ñun ni ñuy dundee xale yi kenn du leen téye périmètre de sécurité bi foog ñu déterminer ko te loolu rek ça prend du temps lii ñuy def rek périmètre de sécurité la ça prend du temps depuis premier jour weeru koor bi ñu ngi ci li ñu ngi ci sécurité kon sécurité bi même buy jël weer jaral nañu ñu jël sécurité bi weer pour que lan pour que dara bañ a naqari nit fii yàlla nañu yàlla may ñu liggéey ko ba mu jeex te kenn bu mu fi jëlee coono bu fi kenn jëlee métit bu fi kenn jëlee jàngoro loolu la ñuy ñaan parce que jàkka ju ne ci biir kër yi la kon périmètre de sécurité bi rek bu doon laaj six mois na ko jar ñu soog a song jàkk ji waaye alhamdulilahi rabil alamin yàlla ñu yàlla dimbali ba liñ ci yaakaar yëpp ñu ñu ñu am ko waaw yéen nag kenn amul seen pay maa ngi leen di ñaanal bu baax a baax a baax euh, xamante ne ñun ñëpp ay frère lañu fii ñun ñii ñëpp ku kuñ fi kuñ fi kuñ fi sa wajur amul jàkki jàkko bi amul mbala koo bokkal deret mbala koo bokkal nangam mbala ku féete ku amul yéen ñëpp lii may wax mën na ko wax lii may wax mën nga koo wax yow mënoon nga taxaw fii wax ña nga njëkkee fële mënoon nañu wax wax ji ñun ñun ñun ñun ku ci ne gis bala nga gis maamam ci jëmmam fii looloo fi ne moo tax kenn mënut wax kenn lu ñaaw te bu ko fi kenn wax. parce que avant ñuy ñëw ci liggéey bi defe eh, naa on a tenu combien de réunions am ah, xëy na boo leen ko rapproché dina leen ko wax pour rek juboo ci dara pour bañ rek bu ñu démarré diw na lii ànduma ci woon. wallahi ku ci ne dem nañu ba xam ne lii nga bëgg lii nga bëgg ñu dajale lépp wallahi amul werante xuloo nañ fi ba tey chaque dimanche matin. xuloo fi xuloo xuloo xuloo xuloo xuloo ba kii ndàngam ndàngam nii ni ndàngam te loolu du sax xuloo juboo la juboo la ci kaddu parce que li gën a am solo ma di leen ko wax lu ñëpp bokk dañ koy waxtaane li ñëpp bokk da nga ciy sóor ñenn ñi dafa am ñoo xam ne euh, dañu defe ne dañu faible te bokk ci te faible nu dañu woyof rek soo leen bàyyiwul xel ci sa biir wax mën nga leen mën nga leen massacrer te loolu baaxul xuloo nañ fi juboo fi kii fi juboo fi nii la ñuy def lee la ñuy def ba juboo ci plan bi architecte yaa ngi woo nañ leen ba tey dañoo jàppante ba sonn te ñu ñëw ñu ne nii tey ñu ñëw ñu ne ñii moo ñoom it comme ci ñun la ñu bokk ils ont compris looloo indi nag destruction bii nag ngeen gis nii muy premier jour weeru koor di dimanche di weeru njëgal di weeru yërmande di weeru texe ñu ñaan ci yàlla ci weer wii nga xam ne ci la ñu commencé destruction bi sunu borom may ñu si taw féex waa moom laa wax xam nga yéen ba ma dama ne ne bàyyiwuñu kenn xam nga euh, am na baat boo xam ne <laughs> dañ koy wax bu ñu nee tuug bàyyiwul nangam yëpp loolu dañ koy wax mais bu ma nee bàyyiwuma kenn ñëpp a ngi ci biir waaye nag wax ngeen dëkk tàgge boo gisee am jàppal ma diw Médina dafa am premier magistrat

ba ñu def ci ak defi boppam Cheikh Ba ku ne xam na ne euh, waajuram moo daan jiite fi Baye Ilimane Ba bi ñuy bi ñuy rénover morgue bii ñun yàgg nañu jël initiative jàkk ji boobu mag ñaa ngi fi mag ñaa ngi fi maam yi ñu ngi fi ñun ñii ak sama génération yàgg nañu innover jàkk ji bu ñu yàlla teeloon may ay milliards wallaay euh, euh, heure bii day fekk ci beneen affaire ndax dañu am yéene ci jàkk ci ndax fii la ñu yare fii la ñu jàngee alxuraan fii la arab bàyyi cheikh ba bàyyi limaan ba climatiseur bi ñu njëkk a kii fii après bi ñu ko defaraatee moo ñu moo ko jënd jox ñu moo ko jënd jox ñu cheikh fii tam xarit bu jot ay nag la fii jor ak yeneen ak yeneen ay jàmbur ñu ngi fii indi ay ay ay kii yi ñuy nodde nu mu tudd kii euh, euh, micro yeeg yëpp man damay indi keneen day indi ventilateur man damay indi keneen day indi léeg-léeg ma song nit léeg-léeg réunion jot fii sax am suma benn xarit bu woote ma ne ko eh million laal la laaj mu ne yaa ko yàggal bala cinq cent mille mun ne yaa ko yàggal fii da nga may woo ci biir réunion bi man la ci jàkk ji laa ne loo fay def ma ne ko dañuy yalwaar lu may joxe ma ne ko nangam te lu ma wax da koy def def naa ko fi ba keneen def na fi ba tey kon am nañu yéene fii ñu ngi ci woo ñëpp autorité yëpp yëpp yëpp Ousmane Paye ministre des sports kër ñoom Cheikh Ba yow moo Cheikh Ba jàkkaarloo kër 37 bi ci la bokk Cheikh Seck mi nga xam ne euh, mi ngi ci jàkk yi mi ngi tabaxi jàkk mu juddoo fii yàlla dimbali muy ko am sutura mi ngi fiy def te xam nga ne kenn du ko kenn du ko kenn du ko kenn du ko ne ñëwal <laughs> déedéet yàgg na fi def ñi may wax ak ñeneen ñoo xam ne ñi ngi jaare ci ñeneen ñii ñi ngi jaare ci imam ñii ñi ngi jaare ci ñoom daam ñii ñi ngi jaare ci mboor ñu bari am ñoo xam ne fii ñi ngi fii ay ma yor ay magasin léeg ñu ñëw ci jàkk ji dugal fi ay nangam ne lii ñoo ko joxe am na moket yoo xam ne kenn mësu see toog yu bees tàq tàq ñi ngi fii kenn mu see toog nit a ko fi joxe ak yeneen kon defe naa ñooñu boo wootee doo xaar sax ak ñoo xam ne ñi am nañu yéene am nañu yéene waaw euh, xam naa nag euh, xëy na di ñu dimbali euh, ci kii nu mu tudd ci Wave bi ak Orange ne bi ak numéro téléphone yi nga xam ne ku ko gis xam ne boo jaaree foofu di nga mën a accéder ci ci ci ci ndimbal bi loolu ñu ngi leen koy ñaan ñu lay koy ñaan xam naane ne incha allahu rabbi ak ama dina ko mottali ci loolu comme ça loolu mu mu dugal ko ci bu ko defee loolu di ndimbal am na ñu bëri ñi ngi romb fii du ñu woo naan ñu lii ngeen sumb dinañ ci ñëw ñu bëree bëri bëri bëri ñu ci woo nag le président la république président Macky Sall ñu ngi ko ci woo di ci woo autorité coutumière yi ngeen wax Ablaye Makhtar maxtaar Papa Diagne Papa Ibrahima Pape Ibrahima barka démb ñëw na ba dugg ci biir biñ ko njëkkee biñ ko tojee ba ca ëllëg sa ñëw na ba dugg ci biir ba xool xëy na xayma li mu ci war a def waxtaan nañ ci délégation jóge ni fii seeti Ablaye Makhtar ñoom Baye Mbaye Diagne dem nañ fa seeti ko wax ak moom ñu ngi waxtaan ak autorité yi maître Doudou Ndoye jël naa penc mi yóbbu fa ñu dem waxtaan ci lii mu ne dinaa ci def nangam boo leen commencé dinaa ci def nangam loolu yëpp euh, def nañ ko yu bari ak woote ñi nga xam ne ñii xëy na jote wuñu ci ñoom bu ñu déggee à travers yéen woo nañu leen woo nañu leen bàyyiwuñ kenn wallahi bàyyiwuñu kenn ñu ngi woo autorité yëpp ñu ngi woo ñëpp képp koo xam ne kii am na lu la Médina mos defal ñu ngi la ci woo képp kuy doomu Médina waxuma jekko Médina périmètre bi yëpp yëpp yëpp nga xam ne Malick si ba ci kanaal bi centenaire ba sës ci armère yi ñu ngi lay woo ak mbokku jullit yi nga xam ne ñoom lañu ñu euh, digalool yëpp maire yi ñu digalool yëpp ñu ngi leen ci woo ak ñi nga xam ne ñëpp ci ñu ngi yëngu ci ci ci ci ci ci ndimbal ñu ngi leen di woo ñu ñëw jàppale ñu ci jàkki jekkoo bi nga xam ne dañ ko bëgg a raser ba mu set yékkiwaat ko defar ko taaral ko ba nga xam ne ni ko mag ñi defoon 69 bàyyil ñu ko fi ñu bëgg ko reprendre.